mbokk info 7 dañuy daw ba Népal Népal nag euh, bu ngeen ko déggee muy benn dëkk boo xamante ni ma nga fële ca wetu Inde xam ngeen di côté boobu nag ku ko wax rek wax ay montagne ndax sax ña ngay wax ni montagne bi gën a ngand ci àdduna bi wala bi gën a kawe euh, muy Himalaya ma nga nekk foofu. ah lu doy waar la fa xew nag euh, mooy benn avion boo xamante ni bu ñu sukkandikoo ci police dëkk ba wax nañ ni mu ngi yaboon lu tolloog 72 personnes moo dal ci benn ci ay montagne ba tax. lu tolloog 67 personnes fu mu toll nii bu ñu sukkandee ci police ba ñu ngi wax ni ñàkk nañu seen bakkan ah, ñu ci bëri nag ah, ña ca des daanaka ñu nga ci l'hôpital yi nekk ci ay situation yu doy waar.